mu mel ni tey lañ ko wéy te mënoon nga ko teg ci temps Ablaye Wade mënoon nga ko teg ci temps Macky Sall mënoon teg ci temps Abdou Diouf tey mën nga ko tegaat mais entre Abdou Diouf ak Abdou Diouf 1981 mais ak 2024 mais 40 ans la mais 40 ans de surplace. Mais c'est extraordinaire. 40 ans de surplace. C'est-à-dire, le gars, il donne Même communiquer il dit, mon est de la taille dit, dougola. Moi, RND. Communiqué, il des temps à Abdou il Taille, mon gars, de date, bi. virgule, dit Sur la confiscation des libertés. Mais quand on a le régime, pour nous changer il ay nit des si ñenn def ci prison ñenn ñi ni si ñenn mais xana loolu kañ plus jamais ça la war do <coughs> mais c'est extraordinaire et puis les mêmes choses les mêmes méthodes se répètent c'est-à-dire une l'histoire se répète quoi kon lu ko fi jaroon lu fi jaroon 80 vingts morts pour que Sonko ñëw au pouvoir lu ko fi jaroon Macky Sall zéro mort mu ñëw au pouvoir Sonko quatre-vingts morts mu ñëw au pouvoir ñu def la la même chose caisse noire di fi am bu léegi ñu ne ma caisse noire assemblée mo koy dindi su ma nee téléphone bii duma ko laal gars yi ne ma am nga droit yore téléphone bi ma ne may man du ma ko laal fii laa koy bàyyi saa yi ma wàccee ñibbi bàyyi ko fi su ma xëyaatee fekkaat fi téléphone bi mais kenn dina ma ne yaa jël téléphone bi waaw ah, caisse noire bi bi bi nga xam ne bàkkaar la woon démb daganul woon démb war ngaa toog 7 mois 8 mois 9 mois muy am caisse noire kañ boo ko fa bàyyee dara génnu si mooy moom moom rey na bopp non non non mais quand même il faut qu'on soit sérieux kon euh, sénégalais yi maa ngi gërëm ñépp di sant ñëpp ci ci ci teewlu bi am na ñu ñu bëri ñu toogoon di di seetaan live bi maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen fàtte ni ADF dina ñëw ci kanam Aïssatou Diop Fall ci ADF en ligne manam mom day tok rek ubi téléphone man damay ubi ni pour yé gaay yëngal leen suma joggé jógee Aïssatou Diop Fall day ñëw mais du am waxtaan du fi dal kenn manam numéro yi rek la leen di tegal ngeen di woote ba 17 h lolu reyna de ngeen di woote rek yéen woote leen rek